jazaa muntaqa xayra jazaa fi kulli saatin wa saati jazaa bihtu bi la ilaha illa laaw siran wa la ilaha illa laaw cheikh moom sëriñ basiiru di xalif général des mourides ci altine ji dëppoog le 25 di fukki fan ak juróom-ñett ci rabiyul awal di gàmmu atu 1443 ginnaaw gàddaay gi sëriñ bi ñëw na ci dëkk bi nga xam ne moom moo di tiib tiib di dëkk boo xam ne digganteem ak mbàkke bawol daanaka fukki kilomètre la ak ñeent nekkee ci kaw tali bi booy dem fi nga xam ne moom moo di kolobaan dëkk bi nag cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke mi nga xam ne mooy waajuru mu Mountakha Mbacke Bachir moom moo sañ sañc dëkk bi at mu jot nag Serigne Mountakha Mbacké Bachir dana ñëw ci dëkk bi amal fi ngan goo xam ne ay fan lay doon ci dëkkub waajuram wu tedd wi sëriñ bi nag bi muy agsi ci dëkk bi nga xam ne moom moo di tiib ay taalibe yu tokk lool dalal nañ ko dal di koy gàttandu ngir mbégte gi nga xam ne at mu jot ñoom ñi dañ koy am ci dalal Serigne Mountakha Mbacké Bachir ci ngan gi nga xam ne moom lay amal ci seen dëkk bi fii nga xam ne nag moom moo di tiib sëriñ bi dina fi def ay fan laata mu fi bàyyeekoo dem ca mbulkayel di dëkku boppam boo xam ne it at mu jot sëriñ bi dana fa amal ngan gu yaatu jazaa muntaqa xayra jazaa fi kulli saatin wa saati jazaa حاجت قصائد قلوب جند الله بشرى مقفى وبشرى أولي كليل أنا والعرود والبيان لي سلمت ولبيان أربتي كتاب من المدور وبيه في تتقرنان إذا كتبت إذا الأرس الباغي وذب الملائكة التباغي alaana bilaaye sëy bilaay sayyidina nuuru rasuulillaahi alladi abdulaay abdulaay xaayidil xalqi laayi lil ilaay sayyidina muhammadin walaali wa sahbihi fil aali wal maali wajal bi jaay muntaxa ayaata riaayatal quraan sil المداد فوق كل ماي بركة كما تري السماي وجل كتابتي ككل مرسلي يا من وابتلي أجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كبر قبل وكنت لي بمخجل النور يا الله يا رمان يا من بمجد مجد خصمها وجل بجاه المنتخبات رعاية القرآن سل آيات وجل بجاه المنتقى آيات رعاية القرآن سل آيات وجل كتابتي من سل يومي فوق صلاة قبلت وسومي واقسم بقتل ما من القلوب أنت الخبير والكبير والغريب وابتلنا بك وبالمسفي عن كل سائل وكل مدفي وجبت بيمن مرسلي وبرني سي وقلبي أرسلي سل سلاما كل فاسد تسوخ لغير سادل يتدي مرب السوخ بلا خراج مع السلام فائقا ليجول أبدا بلا يقاض على الذي ساتني تويدا لك وبرسولك الويدا سيدنا محمد والآل وزبي في الآل والآل يا جائل الخطية فوق السن وذن قيل يا أذيم المني وابتلي سلام آفاق المراد بلا اختيات وجلوت للمراد كما بالغاب والمقتدر معصوم من الأنعاء الخضر نفى لخير جيت ما ساء كافٍ كوان كل ما أساء فردت خير الخلق تفريا يدوم إني لأوخل ويبر وخديم يسر لي خدير ما تأثر على سوالي وتفسر كرمني الكريم والمكرم وخاض لي بذكري المكرم وأوتي مساني كالكدي والتارك مع سكوني مثل إباري سوي التمكين وجرنا غابنا عن فازي يا ما يا لباس للفازي واجهل كتابتي ككل مرسلي يا من وابتلي وجور رسلي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 di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba di sant bu baax ci bi ñu teeroo gan gu tedd gi waaye sax du gan ndax këram la ñëw mu Cheikh Mouhamadul muntaxa ñu sant yàlla bi ñu ko sunu borom mayee ñu fekke ko ren ji euh, teeru ko ci dëkkam bi ci këram gi mu ñëw ngir nemmeeku si dëkkam bi ngir nemmeeku si taalibe yi. ñu sant yàlla bu baax ndax muy lu jafe ku ne Serigne Touba bu la fekk see loolu tawfeex la kon ñi ngi sant bu baax di dalal gan ñi yëpp di wax ne it euh, ñi ngi sàkku ci waa dëkk bi yëpp ñëpp génn kër yi dalal gan ñi euh, fexe ba euh, xam ne Serigne Touba moo fi nekk Serigne Touba nag fa mu nekk ñëpp ñëw fa kon nañu bàyyi xel loolu bu baax gën a taxaw bu baax gën a takk suñu ndigg fexe ba lépp yemb. te incha allah sax loolu rek mooy am euh, sëriñ bi moom lu mu bëgg rek na mu ko na mu ko bëggee la koy amee incha allah euh, jërëjëf.